kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides ci ndigalul sëriñ Amdi Moustapha Fall ibnu sëriñ Modou Mbenda Fall xalif général des Baye Fall sëriñ Cheikh Ndiaye Fall xalif Cheikh Moustapha Fall kàddu yu ndigal yu ànd ki cant ki ngërëm bàyyi ko ci sëriñ Fallu Fall jëwriñu sëriñ Mouhamadou Aminata Fall Alhaji Ibrahima Dia asalaamaaleykum maa ngi jot li ay kàddu yu bàyyi ko ci xalifa général de Baye Fall sëriñ Amdi Modou Mbenda sangam bu baax bi sëriñ Muntaxa jox na ko ndigal ngir mu war a jàmmoo ji Thiès mu yëkkati nag ay kàddoom jox ko sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng Cheikh Modou Moussa mu jox ko jëwriñam ji nag di sëriñ Fallu Fall jëwriñ sëriñ Modou woote mu yëg leen ko gàmm gi nga xam ne Cees leen ko war a gàmmoo ji Sëñ Fallu Fall di ci soññi nag taalibe ñëpp ngi leen ci bokk di ak rakkam yi rawatina jëwriñam a ñu xam naa kon léegi dañuy dem rek waaye képp koo xam ne am nga loo mën a indi itam te indi ko su boobaa it ñu jëbbal ko suñu jëwriñ yi nga xam ne mën sëñ Seex Fall Ndiaye Mbengue moom itam mu jébbal ko jëwriñam ji nga xam ne yàlla bëggoon na rek mooy xalifa général de Baye Fall bi moom lépp loo xam ne it yaakaar na ne rek buñ ko jë indee fi bi a rawale loolu itam moom addee da ko joxe kon képp koo joxee ne ki nga dara loo mën a indi itam ndax bis bi moom bis bu benn la kon sëñ baa ngi ci soññ bi moom mu dem siyaare ab sëriñam kon ñoo li nekk suñu doon jottalu ci kàddu yooyu njabootug Seex Rafaal lay waajal gàmmu Kawsara Faal Cees woo ca kuy dëggaan yiw sëti maam Seex Rafaal yi ak seexam ya ak taalibeem ya ñëpp Cees la ñuy ñëw sëñ Fàllu Faal day àndandoog rakkam ya dongaam ya wër ko seen si kër sa jëm kaw ñuy jàng alxuraan xasiiday bernde yàpp kafeeg meew kaa war ga yay daw ku màggal guddig Mustapha yoneen ba teg ko ci sunna làq cër bu ñuy naw gudd fa nag wërsëg la qualité ngir ngeen di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci sen sen daru Bairé Fall TV da ngay beus fi ñu bind s'abonner ba noppé nga tek ci kolos bi. aha inna la ilaha Daru Darou Fall TV la première chaîne qui valorise la vie et l'œuvre de mam Cheikh Ibrahima Fall.